What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? So I'm a guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to reintroduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Let <laughs> me call my pap J, Ibrahim Mandau. I'm saying Mustafa Mane, that from Belgium. Modu, me hand him my rent you know what I'm saying? So I'm a guy, you know what I'm saying? Come me Liz, I'm a cote. Tu vois, comme les gars, tu vois, tu vois. Bon, son gars, je vais faire une vidéo. Je vais parler de la lutte, voilà, parce que demain, je vais faire la lutte. gis ci benn gis ci benn euh, affiche muy euh, bombardier Eumeu Sène quoi <laughs> non vraiment neexul ba neexul ba Sénégal dafa neex quoi man combat xam nga nit man nu muy gisee loolu yor xaalisam yor xaalisam amul dara lu mu ciy def mooy day dem jënd day dem tëgg loolu quoi bombardier Eumeu Sène loolu loolu ban revanche la ce n'est pas une revanche alléchante quoi on n'a pas besoin de ça quoi revanche day alléchante ñun revanche bi kat yi yàkkamte nañ ko tu vois mu am benn kii quoi comme ba sos daanee guy gi ñu tëggaat ko di xaar guy gi dem riposté Christian Fir Eumeu Sène la seule issue KTV dans la lutte ça venir si lutte mooy te tëj nga ko muy bërëg Balla Gaye yaa fi ñëw indi say raison yoo xam ne kenn ko wax naan tu as tes raisons d'accord on te les respecte mais nga ne doo bëreetee Balla Gaye ba nga di moment nga def déclaration nga tëj say buntu ci ci ci lu saf nit ñi am nga jox ay revanche ay guy geeg yooyu noonu te je te vois nga def loolu noonu quoi donc yaag Bombardier du revanche quoi Sénégal yi xaaruñu loolu quoi du waxtaan du lamb bu ñuy waxee ci grand place yi du lamb bu ñuy waxtaanee ci néeg yi quoi tu vois Bombardier c'est un lutteur que je respecte beaucoup mais Bombardier amul ñaari kaar amul ñaari kaar yi ñaar seen lamb kaddu gi kaddu gi maam jambaan la gars yi xaaruñu loolu quoi barke rasulaay gars yi xaaruñu loolu donc loolu yàq la quoi man su ma yoree sama 60 millions sama 40 millions man nekk promoteur mais barke rasulaay ma tëgg Sa Thiès rëg-rëg moo ma gën a parce que loolu umas combat bu gars yi di xaar la tëgg Sa Thiès rëg-rëg loolu loolu combat bu ñuy xaar la tu vois wala nga tëgg sax garga mboose gargam mbossé Sa ci ah ñaar ko nga mëna am 60 millions 40 millions mais nga fekk ñaari magal màggat yoo xam ne tey ji Bombardier 76 un an moko déssé dese Eumeu amna 45 ans bi yoon la koy bañ fa la depuis cri bu booy ma doon bégle am 30 ans ak boo si yokkee 18 ans ñaata la donc dañuy wax yo xam ne gëmul quoi donc lolu ay combat quoi tu vois bon indi ko weer sa xaalis lii mooy rey lamb nak lii mooy rey lamb genre affaire bu bon yi ngeen di tëgg ni ah du du lamb quoi tu vois vraiment du lamb quoi man dama ko xol dama metti quoi ñaata boy nga mëna a ci lolu nonu ah li gëna ray lamb ji combat yo nak man ni kàddu gi maam jambaan lolu du lamb lolu du lamb loolu du làmb jël tëgg bu doon Eumeu Sène guy gi sax d'accord may sens guy gi wala Bombardier Reug Reug mais ñaari màgget nga boole leen non loolu mënul ne da koy diluer sax parce que ñaar quoi que l'on puisse mooy loolu Bombardier tu fais pas courir Eumeu tu fais pas tu fais bi nga mën amatoo ko defet bi nga jël dafa ñaaw trop trop trop benn combat nga mënoon am mu affaire bi nii mooy nga jaar Balla Gaye te ne nga doo bëre moom say raison yaa xam mooy loolu tu vois ak làmb ji crise crise bu mu nekk mooy loolu quoi donc da muy def quoi boobu fekkee joxe googu nga téye ko nga rëg-rëg wala nga dugg dox ci Sa Thiès Garga nga si ay trois affiches yu yam yu neex yoo xam ne tey ji maanaam mooy loolu noonu ay boy yu ndaw waaw loo nga leen tëgg ci Saint-Ville ñu yu neex te doo bëri loolu noonu loolu yàq sama gars sama gars loolu woon quoi parce que boobu moom day day day gën day gën a rëy làmb te ngeen tëgg tamit bu leen bu tëgg loolu Lac de tamit bu leen ko tëgg amul benn njariñ bëriwul ay Lac de ay combat yi ñoom ñoom ñu saara ñu yàq làmb tu vois booy tëgg tëgg lu alléchant loo xam ne day attirant parce que mooy jaay boppam voilà boo tëggoon tey Sa Thiès Reug Reug loolu day relancer làmb parce que c'est boo ma jéem a seen waaye je suis désolé waaye maa ngi coupé vidéo ñu jàll sama wax